la sëriñ bi ne woon képp koo xam ne sama mbég sa mbéga foo mbokk foo am mbokk taalibe ñëw rek tey si nga feddali pas-pas boobu ba tax na tey jii ñu dalal fii sëñ Dame Cissé ak sëñ Mor Seck ñu baaxee leen ci sëriñ bi ak sëriñ beeg fa mu toll woon ca yàlla ak pas-pas sëñ Dame ñoo ngi siyaare bu baax a baax. waaleykum salaam wa rahmatulah sëriñ Saliou ñoo ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di siyaare boole mboolem jullit yi fu nekk rek ci àdduna bi di leen siyaare ci bis bu màgg bis boo xamante ne. bisu umma islamique bépp waaye rawatina sëriñ euh, murit yi ndax lépp loo xamante ne am nañ ko rek wala sëriñ Tuubaa am na ko ci bis bii la ko amee kon day nekk bis boo xamante ne bisu euh, sant la waaye dafa nekk ñett sukkuru ak sikr ak sikra benn bi mooy sant bisu sant la ñaareel bi mooy bisu sikra sikar mooy alxuraan ak xasida yi ñu jàng ak dundal bis bi ñetteel bi mooy sikra sikra nag fàttaliku la alxuraan a ko wax waaye wa inda sikri saalihiina tanzilu rahma alxuraan nee na bu ñu fàttaliku gaa yu baax yi leer mëne suñu borom day wàcc ci bisub cant kon lool lépp cant koo yëpp si yàlla day delluwaat ci yàlla ndax kii doon cant ab jaam la bu nangoonu jaam amoon pas-pas bu dëgër ci yàlla moom Cheikhul Khadim ndax pas-pasu Sëñ Tuubaa mooy nekk jaam nangu ak njaamam ba yàlla jaral ko lépp moom Sëñ Tuubaa ginnaaw jaral gi mu ko jaral lépp mu bàyyi woon nangoo ñàkk lépp ngir yàlla maanaam Sëñ Tuubaa pas bi mu amoon ci 1895 jamono ji muy ànd ak tubaab bi wala jamono ji ko tubaab yi convoqué pas-pas bu dëgër ci yàlla la yoroon ndax pas-pas bu dëgër mooy sa nooni jamono muy ay yéefar ki tubaab di la tal te teewut nga ànd ak sa pas-pas ànd ak sa gëm yàlla ba pare nangoo ñàkk sa njaboot nangoo ñàkk say soxna nangoo ñàkk li nga am ci taalibe waxoon ne xusuuri xalat wal ahlu anni xat li madahi lasi anhu madi xasiru xusuuri samay njënd xalat wet na wal ahlu anni tafaraxat tàggoo naa sama njaboot ndax lan li madahi lasi madu adi xasiru ngir tàgg Mustafa alayhi salaatu wasalaam kon sëñ Saliou parce que aqida dëgg dëgg dëgg sëñ Tuubaa ci moom la fekk ci moom la yem ak gëm yàlla ak wóolu yàlla ak nangoo ñàkk lépp te yàlla tax kon loolu sëñ Saliou moom la ñu ubbee ci pas-pasu Sëriñ Tuubaa ci yoonu géej ba tey sëñ daam maa ngi dellusiwaat ci yéen ñoo ngi wéy ak programme bi ndax ñooñu ngeen dégg ñuy jàng ci sama ginnaaw mooy kuréel Touba Constitution ci digalul Baye Cheikh Janna ak sëñ Xaadim euh, ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax ñoom ngeen dégg soo ba tey pas fasal seen yéene muy waa kër Serigne Salihu euh, ci ndigalul sunu jëwriñ Serigne Bamba Ñang ak euh, Baye Mbacke mi jiite kuréel bi bokk na ci tamit euh, waa Linière ak waa Morone mboolem kuréel yooyu yëpp fasal feddali nañ seen pas-pas sëñ moor maa ngi siyaare bu baax a baax. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh bisimilah barkab Serigne Touba ñoo ngi lay delloo nuyoo baax di la siyaara di siyaare mboolem waa adduna bi yëpp di di seetaan di siyaare tam mboolem bokk asar yëpp. di siyaar mboolem fu ab taalib mën a nekk di wax ne tey bisu mbégte la bisu cant la bis bi nga xam ne mooy bis bi Sëriñ Tuubaa waxoon ni xarajtu yawma sabti saamina asar li xidmatil fi sëri safar ndax lan sababa xaybati an allaha araada an anaal minhu jaaha wa an akuna saafian li xaw mi wa an akuna xadiman fi daw mi ba mu ne ba ci biir nag ca gaal gam foofu lay wax naan allamani rahmaanu fi safina bi annanil xadimu sil madina mi mu ñibbis nag lay wax naan ican rujuhi ila mi saadatana bu yéemee yéeme le sëriñ boo xam ne bu duun la moom la sëriñ Tuubaa indil ma waral la ñu koy sant mu wax ne bis bii mooy sama mbégte fu fa ak seetee fooy moo nekk damay sant yàlla sama borom tabaaraka wa taala kon ñu ñëw ci sant ci kanam incha allah rabbi ñu jël jox kàddu bi soob yàlla kon sëñ Mor dagguma la sax waaye dama bëggoon nga nga nga baaxe ma ci maanaam sant li waral sëñ bi nii képp koo xam ne sama mbég sa mbége nga santale ma sama borom ci bis bi waaw dëgg la ni saan moom dafa liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam liggéey suma tabaaraka wa taala sëriñ ku nekk da laa jëriñ dafa dem fa suñu borom wax ko lu mu sa wax lu ko kenn mus sa wax mu jox ko lépp mu jàkko sallallahu alayhi wax ko lu mus a wax lu ko kenn mus sa wax mu jox ko lépp ñun ñi jariñ nañu li ñu kenn mus a jariñ moo tax ñu jox ko lépp ñooyu nag boo ko boolee moo waral mu ne bis bii kat ci ma saa joxe loo xam si nii saa bu ñëwatee da koy ful mu ne bis bii kat su ñëwatee da nga ma sant yàlla koo xam ne su ma jógee mën sëriñ mi ñëw fekk si la fa nga nekk loo am da nga ma ko defal bu ñëwatee da nga may sant yàlla cant nag day mbir yoo xam ne yu yéemee yéem la alxuraan ñëw ci ndax bu ñu xoolee ngërëmul yàlla sant nga ko mën a amee ndolle na doon sant nga ko mën a amee ana la yàlla wax ci ngërëm loolu mooy wa in taskuro yardahu lakum bu ngeen santee yàlla su moom dañ leen gërëm waaye itam la in sakartum la asidannakum bu ngeen santee yàlla su moom dañ leen dolli ñu gis ni mi ngi wax feneen foo xam ne naan fakuloo mimmaa razaqakumullah halaalan tayyiban waskuroo nihmatallah in kuntum iyaahu ta'buduun kon sant lu am doole la lu foor la waaye nag bu ñu gisee itam sant gii dafa am foo xam ni sëriñ bi li nekk xéwalu yàlla te war ko sant yàlla baax sant xéwalu yàlla itam mooy dafa am foo xam ne ci alxuraanul karim dani dafa alxuraan dafa wax ne alam tara annal fulka tajri fil bahri bi li yuriikum min ayaatihi inna fi zaalika la ayaatin li kulli sabirin sakurin aay boobu suñu toog moo ko tax a jóg mooy nihmatullah da ko wax si ma dem ne ko nihmatullah xam nga ko suma jubloo nga xanaa màkk dimbaluñ ci mun ko mooy man man maay nihmatullahi maay xéwalu yàlla ci kaw suuf daal ne ko alam tara xanaa gisoo anal falka anal falka naka pake ba te jiri mi ngi daw fil bahri ci géeju Dakar ga bi nimatillahi ana xadim rasul li jëriku ma ngeen ma woon leen man ayat yi ci ay kéemtaanan université gi naka nekk na ci kéemtaan yooyu laajat ñuy waare likkuli sabir ñël képp koo xam ne ba may dem ci géej gi métti woon na la nga di te yàlla rek tax bi ma ñibbisee neex na ci yow sabir ba sakkoon maam ba ngay sant kon ku ne xam ne ne kon murid yëpp bi suñu doon ñibbisee ci nag mbégte xol la dañ ci sant yàlla suñu borom te it moom li tax mu am njëriñ mooy alxuraan dafa bind wax ne wa ma maa yanfa'u naasa fa yamkusu fil ardi man maa desal naal njëriñ ci kaw suuf kon xam na ne njëriñ mooy Serigne Touba moom ma wax ni nafaxani wa bi yanfa'ul wara wa xaadila bi nabi sa wara su moom na jariñ na ma képp ku bëgg a jëriñ ku nekk ci man ngay ñëw kon nag Serigne Touba faaw ñu di ko sant te ko waxtaane ndax wa amma bi ni'mat rabbika fa des kon jox la kàddu bu ci insha Allah rabbi kon sëñ jot a dégg am na solo lool sëñ Dame ñu dolleewaat la kàddu gi di la laaj ci sëñ Touba ak pas-pas ba ak alxuraan tubaarkàlla sëñ Saliou sëñ Touba pas-pasam ci alxuraan lu kawe la sëñ si Saliou bi mu demee Baxaru maa yomba ca lambar na garabu mango gi sëñ am na yoo ñeen am na fa juróomi at juróomi at yooyu nee na jaayante na fa ak boromam ci bàyyi sa fil baxri taxta sajara wal baxru musbidun wa xawli fajara nee na bi mu jaayanteeg jaayanteeg yàlla foofu ak Moustapha nee na duusi géej gi mi ngi daw daanu ci ay yéeréem wala ci dënnam te fekk booba mi ngi yor téereb alxuraan di tagg Moustapha waaye nee na li duusu lépp ak li muy yor alxuraan di bind ak tagg nee ay kàccoor rek ñoo ko wër te teewut nekk ak alxuraan di ko tatafoo ba taw ba ko fa doon fekk sax Sëriñ Tuubaa nee na day jël kaamil bi taf ko ci dënnam tataflu ci garab bi xam ne yaram moom mi ngi dana tooy waaye alxuraan ji moom du tooy kitaabu rabbi kaana li wa kuntu lahu walillahi sakan moom moo alxuraan ñoo dëkk Sëriñ Tuubaa nee na maag alxuraan bàjjan mu nekk téere boo xam ne Sëriñ Tuubaa da koo fonk yalu si biya fal yu dim tilawatan li xayri zikri xar rusil maa ngi digal bépp taalibi bu aju ci man man Serigne Touba mu dëkkee jàng alxuraan mi ngeen gi téere Serigne Touba dara njaareem bi mu eh, ci géej gi 1902 yóbbu ko eh, Mourtani 1903 ba 1907 jëlee ko 1907 ba 1912 Thièyène jëlee njaareem bi mu ñëwee njaareem eh, ci résidence surveillée tubaab yi dañ mayoon ñaar fukki ak juróom-ñett ñaar fukki ak juróom-ñett Serigne Touba ni ñëpp xaafis alxuraan la doon maanaam ñi nga xam ne moom ne sëñ Tuubaa neewaloon ci kër gi biir njaareem ñëpp mokkalkat alxuraan lañu doon xaafis bu masaa séddale aw ñam wala muy joxelu ba ne joxal ma sama waa kër fu ko yóbbu pour ahlul xuraan rek sëñ bi ko nangu boo ko waxee mu ne ahlul xuraan ñooy ñooy waa këram maanaam waa kër yi boppam moom ahlul xuraan lañ tuddee woon gis nga ko feeñ na ca daara jam fa samp ca njaareem lam leen waxoon ca kaabil leen fa a jàng mu ñaari suba ginnaaw bu tisbaar ginnaaw bu takkusaan ba fi mu toll nii ba mu ko sasee ba mu leen ko santee ndigal ca njaareem ba ilaa yawmil xiyaama du jóg njaareem ba ci biir Touba Touba la newoon ci jàkkaa ki jumaa yëpp dañ fa saxaloon ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ci bis bi ba fépp euh, daare Serigne Touba gis nga ko loolu moo law ba ci ko fi nekkal Serigne Touba Serigne Sidi Mokhtar ñaari weer ñett mu wàcce mu wootalu njàngum alxuraan waaye lépp nag Serigne Touba yàlla da koo fayee alxuraan ba pare yonent bi mi nga xamante ne moom la yàlla wàccee ci moom alxuraan moom moo jël alxuraan rafaate ko nag Serigne Touba ci jamonoom la Serigne Touba lan gis kaamilum Njaanja ci jamono Serigne Touba waaye dellusiwaat na ci ayu Serigne Sidi Muxtaar kaamil boo xam ne kaamilu njaajal la daaw jéeg ci màggal gi nga xam ne bis bi biñ koy defar biñ koy biñ koy bind ci bis bi ci lan soqi maanaam ko ci lan soqi ci lan sàdd ci lan maas daaji ci lan ko defar kayit di ci lan ko tabax pilim yet ci bis bi lan ko yàq ak daaji lépp ci bis bi jaasi rek bi ci bis bi lépp génnut ti bis ñu bind alxuraan bi soq ko sàdd ko maas defal ko jaasi loolu ci jamono sériñ Touba dong dong dong lañ ko mos a dégg ba alxuraan wàccee ca Moustapha ca Makkatal Mukarrama ak Madina Munawwara ñaar fukki at ak ñett alxuraan ñu wàccee ba ci jamono Seydina Ousmane ban dajale ko ba ci Seexul Xadim lan gisee kaamilum njàngee loola nag wane na ne yàlla suñu borom li Sëñ Touba wax ne yàllaa ma jox alxuraan rafatale ma ko loolu àdduna bépp xam na ne alxuraan Sëñ Touba ko te it mu ciy def loo xam ne kenn def ko ci eh, ca gànnaar eh, eh, ñi nga xamante ne jóge woon dem gànnaar ku naan Modou Fall alxuraan wax na ne Serigne Touba jox na ko alxuraan ci ñetti fan te la fa yóbbu woon mooy ñaar ñi mu àndaloon ay bor ki jafe-jafe waaye moom tamit ba mu demee dana Serigne Touba man loolu yëpp dara andiwu ma fi man daal dama amoon ni damaa amoon damaa nekk ci askan woo xam ne ku fa mokkul alxuraan rek duñ la tekkil dara loolu moo tax nag li ma bëgg mooy alxuraan Serigne Touba te wutal li ñuy di wut mu ne ko man loolu laa bëgg Serigne Touba nekk ba weeru koor wa teru xool ba gis ko ci mbooloo mi woo mu ñëw. mu ne ko loo bëgg mu ne ko alxuraan mu teg loxoom moom Cheikhul Khadim ca bopp ba na ko taril mu commencé fàttali Serigne Touba jox ko alxuraan ci ñetti fan mu wax ne ahtaytuka alxuraana tafsiran wa tilawatan wa tajwidan jox naa la alxuraan ci jàng ak firi ak tajwid ahtaytuka alxuraana tafsiran ci firi wa tajwidan wa tilawatan ci jàng ak firi ak tajwid mooy noonu ko naa di jàng loolu kenn fekk Serigne Touba ak yeneen ak yeneen yoo xam ne Serigne Saliou buñ ko toppoon du fi xaj ci diggante Serigne Touba ak alxuraan ak fi ko ndax nee na alxuraan yëkkati na ba ca kaw te dootuma daaneel te ku ma jéem a daaneel alxuraan daaneel ngir daraja joo xam ne suñu borom def na ko ci alxuraan te sëñ Tuubaa moomale ko boppam mu di téeréem ba balam boo gisee yoonu di sax alxuraan nin ci mel benn benn benn tarixa bu mel noonu ci alxuraan amul te loolu lépp ci sëriñ kon sëñ Saliou loolu mooy gàttal gi rek ndax dafa xaw a gudd tey ñun seex ak palaato bi sëñ euh, Mor Seck di ko nuyu baax di maa ngi koy jégalu ci kii bi ba dellusiwaat ci beneen laaj bi incha kon baax na sëñ Mor xanaa may egsi ci yow rek sëñ Tuubaa ak liggéey bi ak géej gi ak liggéey beeg ni mu yaatoo euh, te njëriñul ñëpp ne ci ak xasida ak maanaam natt bi ni mettee mu jaayante ko ngir dimbali ñu rek. waaw ndeysaan moom dafa waxoon ni ñett rek moo ma taxoon dem si géej gi ma fi baaxoo yàlla nekk màgg yonent fekk si sa màgg fekk si leen bi topp mooy dañuy fi baaxoo yàlla nekk màgg yonent bi nekk baaxu su fekk si leen. baaxu yàlla nekk mag yonent bi nekk fa baax Sëriñ Tuubaa fekk si leen bi topp mooy xutba samaan daa dox ba ci loxoom mu jom mu jóge ci moom dem feneen mbëgg liggéey ñi koy doon ñi koy doon ba kër saat taxaw bi topp mooy mboolem jullit ñëpp di ay murid yaakaar ko euh, lu mu bari bari seeni tooñ ñu teg ko mel moom képp kenn bañ caa def dara ndax su moom dafa bind alxuraan wax ni man amila saalihan fa li nafsi man asafa moo xam ne que bindee fi lott nañ lool ñëpp ñett yi nag lu nekk dem na ba su moom ne ko am nga ko fii nga ko bi ci gën a métti nag mooy bi nga xam ne moom la romb bindeefu yii waaye dana fekk su moom ni ko lii am nga ko ndax fa garaatu yàlla nekk bu mu yéen fekk si ko garab fekk si leen moo tax mu ne daraja di taxloo wala satan xafit o mën naa xam ne xafit kon sama daraja kawe na ginnaaw boo xamee ni fii baaxoo nekk baaxoo yéen di fekk sama baax moo ko mos a fekk tey parce sama daraja kawe na nag daa doon ab santkat Sëñ kun yaa walliyu yaa xadiiru yaa nasiir lil moom ni innakal xaali basir di ko woy tur moo tax mu daal di koy far yàmm la jox ko loo xam ne si amul benn frontière moo tax mu ni axtaytana jamia doona salabi wala yi taqalu suuf na waxta talabi jox na ma loo xam ne fa ma ko solaa dafa la ma ko joxe moo tax mu ni kon dafa tali kun kun fa yëkkoon moo tax mu ni kun fa yëkkoon mu ne yaqoodu lii kun fa yëkkoon xaaji min ko bilaa xeqat wala ta xaaji suñ tubaa su na kun fa yëkkoon am waaye ci noonu nga xam ne noonu la nekk xéwal bi nekk yëpp waxoon naa ko sànq dama ci ñëwaat mooy képp ko yaakaar sa yaakaar tas waaye mbooloo mi ngay gis fii nii yaakaar gu suñ tuba yaakaar gu ñu yaakaar suñ tuba rek moo waral lii tekk na ko nekk jëfal na loo xam ne tax na nga sawar bu baax a baax si diggante ak moom ndax ndegam day xet ñi ngi xam ne duñu ay sax waxuma laa keneen ndax bi mu nekkee ci géej gi boo xam ne gëmul yàlla xamul yonent bi waaye daal gis suñ tuba rek bëgg ko te yàlla tax di waaye nag kilifa ki nga xam ne moo ko yilifoon da ko doon tere am bis nag mu ñëw di reeree met métti mu laaj ko lu xew mu ne ko man day ka mu yilifoon léegi maa ko yilif waaye booba Sëriñ Tuubaa su mboom nangul mu am nangul mu am ab bànneex ci biir géej gi ba tax ñu yóbbu ko faneen waaye teewu tubaab booba di ko binn ay lettre di ko yónnee ba am bis nag gisutul lettre ya mu yàgg lool mais mu xool ko ci addunam da gisu ko mu xool ko ëllëg yoon xiyaam ca ko ca àjjana yi kéefari gisu ko mu ñëw nag ci àjjana yi jullit ña fekk ko nee na ci njowaan wuy si muy jowaana mujj ku mu daal di dem mu ne ko ana luy lii mu ne ko man de Mbàkke li ma indi fii mooy soppale rek waaye si mu nee na loolu bi mu sëlmalee jul di ko di ko di ko nettali taalibe yi ne li ko jaaxal mooy moom mos def dara lu neex suñu borom ne moom lu ab tool daal def béyutoon dara waaye nag sopp ko rek moo tax mu dem foofee kon sopp suñu Tuubaa mooy li nga xam ni moo am njariñ moo tax mu daan wax naan Tuubaa li abdin muridin saadixin lahuma bi ximati aw hadiyaat solo lool kon nañ jël lépp jox suñu Tuubaa xam ku ko liggéeyal mu fay la waqati hawa ajali seen taamu fii xidmati mu xëbluhum maaraamu kon sëñ Mor maa ngi sant bu baax sëñ daam fi may egg ak rek mooy maanaam ndar nga xam ni fële lépp soxe ko ak ak ak ak nag wa wañ ko booleeloon ak néeg bañ ko dugaloon yu metti yooyu te yëpp mu mu jaayanteeg sama borom rek dem na ba jaayante sax ni aw ñam du ko dugal ci gémmiñ waaw dem na ba jaayante yooyu yëpp. nga xam ni wax nañ ne fi mu nekkoon ci tukki bi am na ci foo xam ne léeg-léeg maanaam da daan dog da daan dagg ci xob yi ngir muucu ndox mi rek euh, ngir bañ a ngir ngir ngir ngir ngir ngir wormaal suñu borom loolu. Agassa Serigne Saliou moo ko bindal boppam diggante ndar jafe-jafe yafa am ak coono ya ak mettit wa ak loolu nga wax ci ñàkk lekk ndax sëñ Tuubaa bi ko laajee loo doon lekk ci juróom-ñetti at yi alxuraan hmm? alxuraan. nee na bu lekk bu bu jàngee benn sumun wala rubox wala nisf rek day daal di day daal di regg day mandi maanaam suñu tubaab léppam alxuraan la ndar googu mu njëkkee la nga fa wax ginnaaw lam wax tubaab ba ba ko waxoon na ko anaam duguma la waaye sëñ bi metti na ndar ndar ndar ndar ndar ndar lu ne teg nañ ko fa sëñ sëñ Saali wax nga dëgg bi mu yegsee bi mu jógee Louga bisub altene yegsi euh, ndar fan ko njëkk yoobu yóbbu ginnaaw kër Ahmed Khoureys mooy biir bi benn magasin Serigne Touba wax na ne magasin ba xat gim xat ak mett gi tilim gi ba jabari euh, commandant bi moo mujj sàkku ci commandant bi ne ko bu ngeen ko génnewul deret ji doot dox te kon du yegg ci suur suur euh, bi ngeen koy attee ñu doog man mën a génne Seexul Xadim ci magasin boobu ngir méttit waaye wax na ne magasin ban ko dugaloon deret de Touba ba tuddoon Serigne Touba banque de sang bi bi bi ëpp bi gën a rëy ci ndar barab boobu la euh, ca ca la dugaloon Serigne Touba mooy fi ñu ko dugaloon magasin boobu léegi moo nekk banque de sang ca ndar kon loolu metti gu mu woon ginnaaw bi ñu ko génnee ci banque de sang boobu ci ndax Sëñ Tuubaa la douze la ñëw euh, août la ñëw ndar ba la cinq bisub la cinq nag mooy atte bi bi ko attee pare nag ci biir gouverneur boobu ci lañ ko tëj ci benn cellule cellule baa nga ci biir gouverneur ban ko tëjee ci cellule ba ba la 18 ba ba ba ma may fan lan ko génne ci biir cellule bi yóbbu ko toolu buur toolu buur Sëriñ Tuubaa ne dafaa fekk gaynde koo xam ne macha allah ndax xiifal gën ko xiifal ak lam bëgg la xam gis gaynde xam gaynde gu nekk ci euh, digg boo digg mandi mu tol noonu ba pare xaw a xiif tekki waaye Serigne Touba dafa wax ne wa man takun bi rasulillahi nusratahu intalxol usdu fi ajamia talin ku yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon dimbali mit ba daje gaynde ci alamit gaynde ga day nooy kon foofu ci boppam la Serigne Touba nooyee la gaynde ba jóge ndar nag moom Seexul Xadim ñëw ndakaaru ci la 18 euh, euh, août 17 18 septembre la ñëw ndakaaru Euh, suñu borom nattoo ko moom it ca koor ga mu jóge woon ndar mu ñëw dal ci benn néeg boo xam ne Sëriñ Tuubaa nee na ci jëmmum rek lan ko lan ko lan ko defar maanaam guddaay beeg yaatuwaay bi ak xataay beeg lépp waaye wax na ne bi ko poussé ba mu dugg ca rabb a teg wa salikal amina wa sabuta taaret ilal jihaari bil armahi nafsi walakin ana sabil maahi sabba koo fanaan moomee ak amir boobu digloon ma ñu tëj ma foofa nee na xelam day jóg dal ci jël ngànnaay xeex ak tubaab bi ngir metti moom néeg boobu metti woon ñu jëlee ko foofu ci néeg boobu ginnaaw bi mu jàngi alxuraan yóbbu ko ci am mbedd mu xat boole ko faak nag woo xam ne Serigne Touba ne bi mu tëbee ba ba dal ba jëm si man nee na wuta wuta wuteeg borom mi laaf amul buum noonu la ko Serigne Moussa ko waxee maanaam maanaam nagu xelum lay doon ndax dafa ñëw ba tëb si ba jëm Serigne naaw dem ba léegi nag wa kenn gisul mbedd ma ba léegi dañ koo garanti dañ koo tëj dañ koo dañ ay kaabal lañ ci takk kon loolu ay jafe-jafe yoo xam ne Eh, sëñ Saliou sëñ Touba dund ko diggante Ndar ak Ndakaaru bi mu jógee ndakaaroot ba dem ci géej gi noonu nga ko waxee eh, ci Gabon googu maa yomb googu muy Libreville Serigne Touba nee na woor na fa koor ba koor ga jeex amul ndog maanaam nee na bu xamee ne dog na rek day dem ba ci eh, garab gu tooy mu fàq ci yéy ko buusu ko maanaam yéy wan na garambaay gi maanaam wan na ndox mi yàbbi garambaay gi doog dog kooram ba koor ga jeex kon bi mu dikkee sànnoo si nag la koy netti Serigne Siré naa leen war ngeen sant yàlla sama koor gi moo ma dàqan ko woon te képp koo saak ba fan ndax am naa fanweeri fan yoo xam ne aw ma xëdd aw ma ndaw kon sëñ Saliou Serigne Touba loolu daj na ko ci diggante ndar ak ndakaaru ndakaaru ba maa yobba xam naa kon xëy na waxtu yi ñu wax ne jot na xanaa ñu bàyyi la kon ñu tàggoo kon incha allah ba beneen yoon incha allah kon baax jërëjëf sëñ daam waxtu wiñ ne mooyoon jot na sëñ Mor xam naa kon nga nga sànni ci kaddu rek euh, te te te ñu tàggoo ba beneen yoon incha waaw ndeysaan foofu suñu daam jeexale rek euh, yoonu géej gi moom suñu tuwaar yu daj ko fi ndax bu ñu xoolee nga xam ne foofu la jëkk a tàmbali ci ay natt yu méttee métti bi mu ñëwee ci néeg mu waree ni ko suñu daam waxee ba ngoon ñëw war a dog mu jël ko dugg ci am ba ci biti waaye yàkkam teg tànkam càmmoñam néeg boobu fa la dugg ca biir ñu duj ko fa dem moom la mu ko néeg bu lëndëm ko làmbal mu dàmm